waaw Bébé Saloum bi fi euh, Serigne Ndiaye numéro 2 ngi fi jug diggante ak Eumeu Sène Junior. bi sifflé na. Bébé Saloum ngi arrière. Serigne Ndiaye topp ko. Bébé Saloum na. Bébé eh jël na ko Bébé Saloum jël na ko Serigne Ndiaye ko. daan na ko wala daanagu ko daan na ko de yaakaar naa ne daan na ko daan na ko nanu gis arbitre yi lu wax yow wane large ñu gis arbitre yi yow danga may fontoo ndeysaan ay eh, yéen taxaw leen fi arbitre yi wax ak yéen ngeen ne fi di wax yow Serigne Ndiaye dan laa wax ne yaa daan ba pare bala nga am <laughs> <laughs> baax na yéen génn leen géew waa Serigne Ndiaye bu ko bi ne woon léegi daanoo lu muy wax <laughs> Bébé Saloum andiwut doole ji ñuy wax ci làmb ji dafa am caay-caay yu bëre bu ne ci moom waaw moo tax en kuy bëri moom da nga koy jox cër waaw kuy bëri moom da nga koy respecté da nga ko war a respecté mais ah Ndakaaru nañ jàppale Serigne Ndiaye yaakaar naa ne moo fa des de ndax yaakaar naa ne leader ñoom ñëpp faas ña fa nekkoon ñëpp daanu nañu ñëpp ñëpp Forza ci defet la jóge Diène Kaïré ci defet la jóge Ada Fass defet la jóge mbër Kamil la ayca yaa ngi ak armée ci loo ne armée waaw Alaaji Fadam maa ngi sant yàlla di la nuyu di nuyu sumu papa Bekaay di nuyu Père Mansour di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu surtout suma waa dëkk waa Mbayla Ndour waa Mbari Aale waa Lougaloo képp kuy bëggee armée rek maa lay nuyu di la siyaare bu baax a baax di nuyu suma xarit ma àndal général ak daa di félicité euh, boy di encouragé Bébé Saloum tamit suñu mag. mais yaakaar naa ne ko bi fii fa fa l'armée toll fa l'armée toll maa ngi dégg ñu naan nga euh, armée daa bàyyeeg lu ne maa ko dégg. non yàlla tere man xale laa ndaw am na ñoo xam ne armée rek la ñuy bégee. mais a bëre. non gëju maa bëre ren bëre naa neel dafa naqari sama côté fan yi mais aduna ak looloo ànd ñu ngi waajaat ku ñu xool xam ni tey lañ gën a bëgg làmb tey lañ ci gën a nangoo def fulla ak fayda. kan lañ lay proposé ci xale yi. waaw ñu ngi may proposé damay bañ a tudd nag mais ñu ngi may proposé ba six xale. waaw mais tamit samay moroom lañ rek daanaka rawonte moo am ci làmb ku ci yàlla dogal ñu war a bëre su ñëwee dinañ bëre en tout cas méttewul sama côté rek. waaw man lamb laa fi nekkal te météwul sama côté. kon am na solo armé. ah. loo bëgg a wax lan message ngay lancé à part waaw di woo promoteurs yi rek di leen gën a woowaat xam ne ndaw laa ci lamb laa bokk. Euh, lamb yàqal na ma activité yu bëree bëree bëree bëri heure bi danaan fekk ma nekk ci préparation lamb kon bu demee ni ñu sant ci yàlla bu baax a baax waa di xam ne ay ndaw lañ ay jaam yu xeebu lañ waa benn baraag nag dafa am lu ma leen ameel te ci kattanu yàlla bët boobu bor boobu ameel dinaa ko fay incha allah rabbi ñu lay jaajëfal alaaji Fadam jaajëf. Insa Diallo jërëjëf nuyu naa la. Fadam.